c'est que xam nga euh, ñun sénégalais dañu xaw a am benn fidélité ci suñu habitude. Mhm. waaw léeg changement dañ ciy xaw a réfractaire souvent dañ ko ragal ba ci démocratie bi y a plusieurs comme ni wax sànq mhm. y a plusieurs formes de démocratie par exemple euh, mode de de de gouvernement bi de gouvernance bi am Canada wala bu États-Unis wala bu France c'est pas la même chose Allemagne mandat yi kenn du ko délimité waaye mm-hmm. alors que démocratie la kenn ku ci nekk à partir de tes valeurs endogènes socioculturelles même euh, politique anthropologique ci ngay mën a xool pour mën a dem mm-hmm. mais ñun ci yeneen bët bëtu Occident la ñuy xoole suñu euh, arène politique mm-hmm. amoon na benn euh, kii Mame Less Maam Lees Dia Euh, journal bu satirique la woon bu tuddoon le politicien. Mm. bu ama am solo. ngay xool ci suñu imaginaire sénégalais naka la wone landerneau politique nu mu demee. Mm. ci ay galgalanteeg ñii tëgg fii. Mm-hmm. ñii di bàkku fii ñii di mm. kii fii. loolu dafa am solo ci ci ci politique ñu nit ñu reveniraat comme ni nga dégg ñu naan il faut rebâtir refonder un un un nouveau état. tel tel tel tel un. le système ak yooyu. ñun loolu feeg adapté wuñu ko suñuy valeur endogène dañuy jàddaat parce que sàq mi ci sa gémmiñ la gën a euh, neexee waaw te ci lay gën a mokke aussi mhm. donc moo tax ci ñun am na yoo xam ne ci ay probabilité la ay hypothèse la mhm. donc loolu nekk loo xam ne lu ferme mhm. lu factuel dañuy dañuy ci lay kii rek euh, pour mën a dem mun nañ def euh, par exemple Yewwi ak ak taxaw force la ñu woon. boo xam ne tey bu fekkonte woon ne li am amul kon mën nañu première tour ñu gagné. bu élection amee. Mhm. bu ñu amee seen benn candidat. mais bu fekkente ne nii tey lii am na. Mhm. muy lii aussi na ngeen xam ne donc yeewu muy ak ak yeewu dépouillé wu na. Mhm. force bi mu amoon. dëgg la. donc pourquoi pas donc Benno par exemple nga xam ne tey bloc la boo xam ne tey majoritaire mun na am mu am. majorité ci première tour mu dem mën na nekk. Mhm. parce que ay candidats yu écl bloc yu éclaté wu la. te ñoom déjà bloc la benn boo xamante ne bu compact. malgré ko comme armée mexicaine la mel nag y' a beaucoup de commandement <laughs> kenn xamul. politique bi aussi mën nañu. parce que ki ko yor aussi c' est un grand stratège. Mhm. Euh, ci wàllu politique muy le président Macky Sall. Mhm. Euh, euh, mun na ne bon léegi man maa lay yow dóoral fii. bu ko defee nga am fii 10 pour cent. Mhm. yow dërël fële nga am foofu vingt pour cent. Mhm. kii am 15 euh, pour cent bu ko defee après. léegi ratiser nañu large. Mhm. bu ko defee fële suba ñu ñëw. tout donc loolu yëpp lu mën a nekk la. saa à dire lépp c'est dans le domaine du possible. donc warul nekk loo xam ne dañu ciy ancré wu lii rek la mais crise bi ma gis nii le aubaine la pour le Sénégal. maanaam politologue yi euh, constitutionnalistes yi légistes yi. ñi nga xam ne ñooy les sociologues ak ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu ñu jëmee réew mi kanam dañu war a toogaat jàngaat situation mm-hmm. waaw fexe ba nga xam ne tirer ci les les avantages mm-hmm. cest à les les en conséquence mm-hmm. ñu tirer ko ci ba nga xamante ne ni dinañ ko mën a jëriñoo ba nga xam ne problème yi di bu amaatee wala yu ko gën a grave mën na am parce que société day màgg bu ko defee ñu mën a xam naka lañ ci mën a demee mais mënul ñàkk moom il faut que mu